dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di enquête dellu si waat ci mbiri Karim Wade ak Khalifa Sall mi njiitu réew mi di président Macky Sall wax na dàqul amnistie leen journal bi nee na Macky Sall bu yëkkatee kàddu yooyu ak bëgg leen a amnistie li mu si jublu ñenn ñi jàpp nañ ne dafa bëgg apaiser mbir yi ndax jamono ci tension bi daan na yéeg lool am na ñeneen ñoo xam ne ay analyse politique la ñu gisee nañ ne Macky Sall su dee dafa bëgg amnistie Karim Wade Khalifa Sall loole nag dafa bëgg daal yàq ànd bi nga xam ne opposition bi ma ngi koy ànd ndax Karim Wade bu ñu ko amnistie ne si Khalifa Sall reconfiguration politique mooy am choc des ambitions am na yeneen analyse politique yoo xam ne ni ñu gisee mooy Macky Sall su am ne see Karim Wade ak Khalifa la mu jublu mooy néewal doole Ousmane Sonko mi nga xam ne maanaam dualité bi saf na sàpp digganteem ak Macky Sall yéen a kaay gii di ñu xëy fekk fa ministre Abdoulaye Sow mi nga xam ne jamono ji moo santaane ngir panneau publicitaire yi ñu jëli ko ci Ndakaaru nee na nag dindi gi ñu koy dindi ci yéenekaay gi de Les Échos Sud Quotidien ak Vox Populi xëy dañu xibaar nan ñu nekk démb ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew di maître Malick Sall maa nga ci assemblée nationale ngir nag défendre ab budget ma waaye nag waxaat ci lu jëm ci poste premier ministre bi nga xam ne njiitu réew di Macky Sall sàkk war na ko indi ci réew mi yéenekaay gi de Le Quotidien nee na lépp leer na poste premier ministre andi war nañ ko ci réew mi ji nag njiitu réew di président Sonko loole nag dañu ko war a lijjanti ba mu leer naññi ndax mbir la moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar la waaye nag am na beneen jigéen boo xam ne kookee nag am na jëkkër sax te dañoo yegg si kawam dañu ko violé te ki ko violé nag njort nañu ne ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf la te loolee tamit lu ñu war a lijjanti la waruñu ko nëpp nëppal yéen kaay gi dalee si ko nee na en tout cas li am ba des la maître Djibril War moom ma ngi tuuma la ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf lu jëm ci wàllum violé koo xam ne am na jëkkër ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa jéem a jaay ba kookee nag député na musiba ak mbelenkaan député Abdou Bara Dolly ndax nee ko yow góor jigéen nga loolu la ko wax ni démb ci assemblée nationale nee ko taisez-vous espèce de góor jigéen a kaay gi nee na assemblée nationale na jër a kaay gi di la xëy di xibaar naan ñu député yi nga xam ne joxar bi nañu leen baaraamu tuuma ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ñaar fukki fan benn ci weer wi danañu leen dégloo yéen a kaay gi xëy di xibaar naan a dëgmal ndax am na ñenn ñoo xam ne ñoo si dox tànki jàmm yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy nag séq waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoo taxawal benn orchestre boo xam ne jigéen ñi la tudd jamono ji mooy toj réew mi ndax ñoom nee nañu ginnaaw nag ñaari single yi nga xam ne na nañu ko la nga xam ne moom lañ sa waxtaan nag mooy violence faite aux femmes am na album timit boo xam ne génne nañu ko wax nañ ci seen style de musique nee def nag mbalaax di def reggae di def rap ñoom bëri nañu ay projet seeni projet bokk na ci tournée nationale boo xam ne ñoo ngi koy waajal ak beneenub album ni yi orchestre jigéen ñi la ñu tudd nee nañu tamit dañuy accompagner musiciens yi nga xam ne amuñu orchestre nee nañu tamit gis nañu ne lu jëm ci wàllu musique jigéen ñi dañu leen si ginnaawal te loolee dañoo bëgg mu jeex yéene kaay gi dee sat xëy ñu diwaanu Angleterre Premier League na bataay bi nga xam ne moo am jamono ji mbir mi jéggi na dayo diggante Manchester City ak Liverpool ak Chelsea yéene kaay gi nee na ca Espagne foofee tamit derby am na fa diggante Real Madrid ak Atlético Madrid yéene kaay gi nee na Sadio Mané ak Edouard Mendy jot na jamono ji ñoom ñu daal di làmb Papa Sow Siteu ginnaaw combat ba ba mu yàqoo taxawalaat nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier wi nga xam ne moom la ñu dëgmal Max Mbargane Lansar ci Siteu daat nay wax ne combat bi nga xam ne moo doxoon diggante Siteu ak Pape Abdou Fall combat boobee jeex na bu ñu ko bëggee taxawalaat leneen lu ñuy waxtaane lay doon